asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ginnaaw accident gu gi nga xam ne moom moo amoon ca Kaffrine ba mu am ci lu tolloog fanweeri nit ak juróom-ñeent si ñàkk seen bakken lu weesu téeméer daal di ci am ay gaañu-gaañu démb gouvernement bi daal di nay jël décision yoo xam ne dafa bëgg ñu daal di wàññi ci nu mu gën a gaawee lépp lu jublu ci wàllu accident yooyu colikaay bii di si quotidien du ñu xamal ne ab conseil interministériel le kii di joriñ gu njëkk gi daal di jiite démb te nga xam ne nag moom mooy Amadou Ba moom daal di ne xamle ne ñaari yoon a ngi ni nii nag fas yéene nañ cee jaar ngir fexe ba wàññi l'accident yooyu ba ca njëkk moom mooy képp koo xam ne da nga def naka su dul noonu ci wàllu tali bi yoon dina tegu ci sa euh, ndodd wante it ma ngay bëgg ñaax ñi nga xam ne kon ñoom ñooy dawalkatu oto yi ngir daal ñu soppi seen doxalin su fekkente ne ñu ngi ci tali yi gouvernement bi daal di gis ne ñaari yoon yooyu su fekkente ne jaar nañ ci ci ni mu waree mën nañu wàññi accident yi nga xam ne euh, saa su ne dafay faat ay nit autolikaay bi di si quotidien du ñu xamal sax ne at bu jot dina am juróom-ñaar téeméeri nit yoo xam xam ne dañuy ñàkk seen bakken ci wàllu l'accident yooyu démb bi ñu jógee ci conseil interministériel boobu culikaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal ne am na yenn ci ay ndogal yoo xam ne jot nañ ko caa jël wante suñu natango yi ñoo ngi ñuy fàttali ne dañuy ñëw dolleeku ci yeneen i ndogal yoo xam ne ràññee woon nañ ci taxawal fi ay brigade mixte maanaam daal ñu boole police gendarmerie douane ak eaux et forêt ñu war a mën a saytu nag lépp lu jublu ci wàllu dem ak dikk bi ci noonu sax dina am tamit li ñuy tuddee signalisation des mën kaa ñoŋal ak tamit taxawal ay ralentisseur ci yoon yu bëri wanteew culikaay bii di l'indépendant mi ngi ñuy xamal ne ci wàllu ndaje bi ñu mujjee amal ñaar fukki mesure ak ñaar le gouvernement bi daal di jël le soleil di ci ñëwaat benn par benn wante di ñu xamal ne ca gën a fës daal moom mooy ne léegi tere nañu oto yi ñuy daal di jóge ci ab dëkk dem ci beneen dëkk li ko dalee fukki waxtu ci guddi jàpp juróomi waxtu ci suba maanaam cinq heures du matin it dinañu tere ñuy ca bitim réew ay pneu yoo xam ne ay pneu d'occasion la tere nañu ñuy soppi oto yi nag di ci def ay Versailles wante it dinañu ubbi ay centre de contrôle technique eh, ci yeneen i diwaan jolikaay bii di Vox ma ngay ñëwaat ci ñaar fukki mesure ak ñaar yi nga xam ne nag gouvernement bi daf ko fee jël ngir fexe nag ba ñu eh, li nga xam ne moom mooy accident yu ñuy faral di nemmeeku ci tali bi jolikaay bii di Le Témoin ne mesure yooyu de dina ñëw dolleeku ci fukki mesure yi nga xam ne jëloon nañu ko ci atum wante suñu naatango yi di xamle rek ne mesure yooyu yëpp liñ ciy xaar rek moom mooy ñu daal di koy dëggal ci ni mu waree accident boobu nag ba mu amee autolikaay bii di laas moo ñuy xamal ne ñii di kilifa diine yi ñoom ñëpp daal di nañ ciy yëkkati seen kàddu Walfadjri di ñu xamal sax ne xalif yi ñoom daal di nañuy gën a ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy dawalkatu oto yi ngir ku ci nekk nag am comportement bu baax ci tali bi ci biir autolikaay bii di suñu natango yi di ñu xamal ne xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou moom sax génnee na koppar gu toll ci ñeent fukki million rax ci dool boole tamit wax ñu daal di amal ay wàcce kaamina Serigne Babacar Sy Mansour moom it démb daal di nay fësal ay kàddu jëmale ko ci ñi nga xam ne kon ñoom ñooy dawalkatu oto yi l'accident boobu nga xam ne kon moom moo faat ci lu tolloog fanweeri nit ak juróom-ñeent autolikaay bi di libération mi ngi ñi xamal ne l'enquête bi ñoo ngi koy wéyal wante fi mu nekk nii l'enquête ba la mu fësal de dafa doy waar ndaxte nee nañu benn ci bus yi nga xam ne kon moom moo am accident bi nekkite yoo amul woon sax assurance rax ci dolli ci ñaari bus yëpp dafa am yenn ci ay jafe-jafe ci wàllu technique te pourtant ñaar ñoo ñëpp jàll nañu li nga xam ne kon moom mooy visite technique autolekaay bii di yor yor moom fu mu nekk nii la ko yitteel moom mooy di laajte lu tax Macky Sall ba léegi nag dàqul ki nga xam ne de moom mooy Mansour Faye ndaxte moom mi ngi sookee ay mbir yu bëri ba ci njëkk moom mooy contrat mage bu seen o ñu koy laam-laamee beneen bi moom mooy détournement bi am ci wàllu fonds force covid 19 li ci mujj nag moom mooy ñii nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken yeneen ci tali bi rawatina nag fële nga xam ne moom mooy ca Kaffrine ñu dellu si waat daal di wax nag ci fitna gi nga xam ne moom moo amoon ca assemblée nationale ndaxte docteur El Hadj Oumar Diop nekk ab jàngalekat ca faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh Anta Diop de Dakar moom moo ci doon jukki ba mu nekkee ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM moom moomu di El Hadj Oumar culikaay bii di Sud Quotidien mi taataan ay kàddoom mi ngi ñuy xamal ne daal di lay amal ab jàngat jëmale ko nag ci wàll gi ni mel muy xamle ne gulet ñuy nemmeeku fii ci biir réew mi l'opposition bi ak majorité bi daal di xaw a tolloo sax ci nombre de sièges yi nga xam ne moom la ñu am ci assemblée nationale loolu nag moom moo tax ba su fekkente ne ñi am majorité bi tey jii di waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom jéemu ñoo waxtaan ba juboo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bi kon kay ay ak yi nga yoo dong ñuy faf di nemmeeku foofu nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale docteur El Hadj Omar Diop ba léegi di gis tamit ne ñi ëpp ci ñi nga xam ne tey jii ay député la ñu foofu nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ñoom musuñoo nekk député maanaam kon amuñu benn xam-xam ci naka la ñuy euh, taxawee ak tamit naka la ñuy doxalee euh, ci biir assemblée nationale loolu it bokk na ci lii tax nag euh, fitna dafay faral di am ak tamit ñàkk juboo gën cey nemmeeku. ñu jeexale ko ak utilikaay bii di la réveil tey jii ma ngi ñuy jox ay xibaar ci suñu naataango bii di Pape Alé Niang ñoom ñu ngi ñuy xamal ne coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains ñoom fu mu nekk ne la ñu bëgg moom mooy ci ni mu gën a gaawee fu mu nekk ni moom wér-gi-yaramam dafa xajam torop te it place nekkul fa li nga xam ne moom mooy ca kaso moom dañ ko war a bàyyi mu delluwaat ci njabootam lii moo nekkoon waxtulikat yi li nga dafa si biir ëcculikaay yi ñu leen di ñaanaan njeexti lu bës ak jàmm